salaamaaleykum mbokki internetu Dakar Live TV Univers Info maa leen bu baax di leen ziar mbégte koy defee jàkkaarloog yéen euh, tey nag daal di ñëw fii léegi nga xamante ni rek moom moo di diwaanu Caaroy Géej daal di seet si nga xam ne moom moo di grand Khadim Ndiaye euh, xam ngeen ni coow li jamono ji daal nay euh, ñëw ci seen kaw bu baax ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ahlu lamb bu li ko waral bokk ci audience bi ak point de bi nga xam ne def nañu ko dama koy bàyyi rek mu nuyoo bu ko defee ñu door waxtaan bi grand Khadim maa ngi lay ziar si maa ngi lay fay di nuyu say caméraman di nuyu say auditeur ak say auditrice di wax ni ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonte bi sant suñu ñaari waajur di sant euh, Serigne Touba Khadim Rasoul di ñaanal sëñ mun Mountakha yàlla na fi yàgg Mbàkke te wér suñu bunt ci sëñ Touba muy sëñ Modou bi Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal di nuy samay xaritu bopp muy Pape Abdou Fall Pape production di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm muy sama patron di sama xarit nga xam ni seetaanuma di nuy tamit ki nga xamante ni mooy Matar Ba ministre ak Kéba Kanté bi nga xamante ni mooy doomu Papa Cheikh suñu xarit di nuyu euh, as ndaw borom du commande di nuyu waa Caaroy géej yëpp magi dëkk bi ak sama xarit Laay Njaay sama copain yi toog fii yëpp ñoom Sambay Diop ñoom ñëpp di nuyu waa Caaroy géej di la déglu say question alors am na solo fi ñuy dooree mhm. waxtaan bi bokk ci audience bi nga xamante ni euh, doxoon na ci seen diggante ak njiitu réew mi président Macky Sall mhm. sénégalais nag euh, ñëwoon ak coow bu bari bi nga xamante ni mhm. amoon na ci audience boobu lan moo ko woon waaw bi xam nga comme niñ ko wax rek Macky Sall moom la fi yàlla teg mooy président de tous muy yow ak man ak sama morom loolu la yàlla dogal su ootee su wootee ñun ñëpp war a dem ko ñu jekk ak teraanga te li ñu doon doyee man pour man jàpp naa ni pour dimbale population pour pour pour dimbale population làmb xam nga euh, man nag boo gisee ma di ci wax du ma du ma lutteur en activité du ma lutteur en activité ndax tekki naa sama sama ngemb sama sama ngemb comme ni ko te di di jaale nag Aziz Ndiaye mi nga xamante papaam foofu laa waroon njëkk sax papaam dafa gaañu muy suñu baay baay aale mu tombeek sama benn xarit papam gaañu moom it mu doon ma defal lu ne moo tax dew ma ca dij bi mais dinaa préparer ànd ak sama dem jaale ji ko ndax ñu koy masawu baay aale euh, quelqu'un la ci réew mi di wax ni bi ñu bi ñu bi ñu invité ñun ñëpp a àndandoo dem ci maas man nag li tax ma di ci wax mooy ci làmb laa bokk produit làmb la lépp lu ma am jeunesse bi ñoom ma ko jox ak population làmb kon su ma demee ba tikki sama ngemb tamit lépp lu président di woote yaakaar naa ni sama loxo war na cee bokk non pour dimbale ñu rek pour dimbale ñu rek lañ fi wax maanaam dimbale eh, li xam nga fi may wax ak am na mbër yu ndaw yoo xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw te bu am na mbër yu ndaw yoo xam dañu feebar am ay anciens lutteurs yoo xam sax dañu feebar fi may wax ak yow xam nga loolu ne Sénégal gépp mën nañ teg seen bët xam nga te loolu bul xool man gis nga li may gis nii man nammuma dara sama société laa yor gis ngeen ma nii su ma paree ak émission jam ñaajo laa jëm damay liggéey dama yor ay ndaw di leen fay xam nga man nekkuma rek dama bëri rek ba payi bëri rek courage bara dama yor sécurité ñu koy wax Touba sécurité et service di li employé ay jigéen ak ay góor mooy ñiy bale bureau yeeg yooyu yëpp di employé tamit ñi nga xamante ne ay société lañ yor boo ma ñëwee dénk ma si société ma garé la ko fi nii vérification lay dem defi xool yi ñu nekk ci terrain bi kon maa ngi sant yàlla ku ci yor saw làmmi ñu ñaaw nag di wax di acharné wu kooku yow la concerné mais ñun li ñu wax jëmale ko ca la amoon ñëpp teg nañ ci seen bët barki dem booy jaay soq gis ngeen ko Sénégal gépp gis nañ soq mi jëloon boole ko ci soq génn na wax xam nga dañuy wax ni li tey seen wax rek laay sukkandikuwaat euh, ñoom ndono lañ yor bëgguñu mu mu jëpp poussé mu réer xam nga intérêt personnel mooy yàq réew mi ndax réew mi nag ñun ñëpp ko bokk ku sañoon réew mi jàmm fi am dañu waxante dëgg jàmm ci la lépp xaj xam nga mais duñ jël ay nit di leen fitnaal di leen def naka sudul noonu wala ngay jël nit teg ko foo xamante ni yow ko fa sa bopp Sénégal bu fekkoon ni yow tey yow soxna si man li ma la yéene loolu nga ma yéene Sénégal day avancé mais ci suñu buur yi ba léegi Sénégal nii la ma sa dem suñu buur yi sax xeexluñu woon ci Sénégal laaj ma lu tax suñu buur yi ci seen biir ñoo doon xeex xeexu ñoo woon ak tubaab bi mhm. da ngay gis buur bi nekk fee béréb sàngam nga dem xeex ko nangu dëkkam mais xeexaloo woon pour tubaab bi dañu waxante dëgg rek kon loolu dafa yàgg ci réew mi kon il faut que ñu xool loo xamante ni luy développer réew mi la ak luy jëmee réew mi ay H man nag samay wax bu ko jigéen yaakaare yàqee samay wax boo ko waxee jigéen yàq ko dootu ko defati su dee góor ko yàq ma ñuusul ba nga dul waaw ñu baal ma ci kàddu. kon kon góor ñi mhm. li nga xamante ni moo leen ci topp euh, alors ñun li laaj rek mooy euh, lan moo tax gisuñu la ci conférence de dama ne yëguma ko je pense que damay wax rek population bi mhm. nañ xool ñi am ngor. am ngor man su ma neexoon mën na maa gën a bañ a génnati wax fen ndax man kenn jàppalewu ma ci dara tey lii ngay gis muy muy muy kii nga xam ti mooy mooy mooy ministre de l'emploi muy Pape Modou Fall sama mbokk la ndax sama yaay waa Diourbel la ñun kër gu mag lañ dëkk mais tey amul benn projet boo xamante ni tey maa ngi koy employé ci samay nit ci xale yi nga xamante ay mbër lañ ay ñam Touba gaz ak ñi nga doon ñëpp ci man lañ nekkoon ci aéroport mbay saar Sénégal jël ma foofu may liggéey mën naa la laay njaay mi mën na ma seede ay mbër yu bëri ba fi ma waxee yow ay mbëri deuxième combat yoo xamante ni maa ngi liggéey ñoom te di leen yombalal nag seen carrière ndax dama leen xëyloo huit heures ba midi ñu wàcc ngoon gi yëpp ñoom moom seen bopp suba ci huit heures la ñuy xeer ndax dañuy def carrière mais loolu tey jàppal ni tey su ma état doole la woon jox ma ay marché est ce que yi nga xamante ne ay deuxième combat lañ est ce ay troisième combat yi wala amuñu dara ci luñ jàpp est ce que leen mën a jël employé leen ñuy am dara di am di liggéey di fayeeku weer bu amee combat bëri ji bu ñu amul combat dem liggéey mais loolu lépp defuñu ko fu ne jo fu man jotuñu maa jox sax mu wax ndax ñoom deet ah ci li ma dégg seen mbir bi biñ koy def ah ci li ma dégg ci weew nag dañ nag Xaadim Njaay buñ ko yëgal lii ndax wax ko tu dëgg la bu nit ñi jaaree fii moom dëgg gi rek lay wax te comme nag ku aj day bañ ku teen xëy na ñoom dañoo aj mais dama bëgg daal ñu dimbale monde lamb buñ bu boobu monde lamb président yow la fi yàlla teg billaahi wallahi tallaahi am na ci sa njaboot yi ñu nekk ci lamb ji billaahi wallahi ñoo xamante ni ñu ngi souffrance laay njaay mais mën na maa seete ñaata carte d'identité laa yor yoo xamante ni fii ci mbër yu ndaw lañ pour bëgg ma jël leen mais ma leen employé ndax samay marché bëriwul état boo ma war a dooleel état bu ma ma am na marché boo xam dama ko doon xëccoo ah, benn société du ma tudd turam mais dañ ko dañ ko dañ ko nangu ci man jox ma ko dañ ko nangu ci man ci ci man lañ ko foxar ñee jox leen ko way ndax c'est parce que ñi nga xamante ni ñoom laa nu xeexal ñoom am na ci koo xamante ni dana leen maa leen di xeexal lii bu defee moom ñu moom mu am ci pourcentage ay sénégalais xam nga kon réew mi man li ma bëgg rek mooy ñu def jàmm di dox jàmm di wax jàmm bu ñu ko defee réew mi jëm kanam. d'accord wax mm. ay wax bi nga demee fale euh, audience bi yow jëloo woon parole. Mm-hmm. lan waral loolu. ah boo jëloon parole. billaahi moo président dina dégg ndax président mm-hmm. dégg la bëgg a président ku ko ko bëgg dimbali mm-hmm. bëgg ko jàppale da koy wax li nekk ci réew mi. kon su ma ndax moom yaa ngi déglu Abdou Diouf ay jamono. mu ne xamuloon ni kafe bu juróom am na yéen a ko doon déglu à l'époque Abdou Diouf ma soon loolu président boo gisee mu fal ay banqaas c'est parce que loxoom jotewul fen bi ay banqaasam yi mu fal ñoo ko dimbalewul ci dara seeni nit bopp la ñuy seet dimbale leen te loolu nag defalul am réew loolu defalul am réew xam nga réew li koy defar mooy seb jeunesse jeunesse bi nga xamante ni tey fii laajal sama xarit yi may toogal billahi wallahi tallahi man dañuy dem ba yaakaar ni sax maak Sambay Diop mii borom kër gële ay maire lañ ndax ñi ñi di seeni soxla quoi c'est parce que réew mi ko réew mi metti ku ko waxul da ngay wax la neex yow yow ngay réere mis fi di ndekki ay croissant nga bëgg yow nit ki nit ki réere fonde du ko kaas il faut mu kaas ko. kon su ma bi ngeen amoon yéen yow bi da nga topp ànd ak ñoom mais xamoo woon seen la. dañ ma doon siis sax siis sax dañ ma ko doon def. siis si naka. gis nga association bi ñuy association des lutteurs en activité maa ngi nuyu Khadim Kadiaga ku baax la. lu ne wax naa ko fi mais lu ku baax la ndax li tax nii nii nekkul dara nekkul président de mais man gis naa ni am na mbër yoo xam ne ngi dimbale ñu feebar ci suuf billahi yàlla moo tax may wax ndax xaadim lañ ko tudde ma tudd moo ma yàq buñ doon ànd buñ bokkoon ndey ak nga jaar nekkoo ci lu dëgg nga ngeen jote yow mii soxna si nga jote koo xam ñoo bokk ndey baay mu tooñ la buñ ñëwee ba gendarme dama naan moo tooñ baal ko wax mais dëgg moom yàllaa ko dëgg nag boo ci nekkee bu ragal wéet moo tax ragal ma wéet ci leen du ma tontu yi am na yenn bojo bojo yoo xamante ni man duma leen tontu xam nga lu tax du ma leen tontu du ma ak ñoom. waaw maanaam teel teel ma teel ma teel ma ndaw ñi ma du mag ñi. xam nga te man yàlla dénk na ma fit woo xamante ni ak capacité boo xamante ni aw ma lu may tiit ci sama adduna. xam nga sama rakk mbër yi fi ne ba encadré jote bal àll bi xuus lëndëmee ragal xuus man maa leen xuusal jàllale leen. Pikine am na mbappat yu faran am su ma saan am. ay 37 paaka ay jaasi 37 la ñuy génn jàq koog sama rakk yi ñuy tëb ay miir siini pee xam na li may wax alpha baka yoo ko xam na li may wax man maa la ñëw génn leen dox ak ñoom jaar teere sips romb booy yi kon dama bëgg rek ñuy ñu bañ a toog di yuuxu ci balalal di mbalalal yooyu amul sens. la ñu yeewu ak kàddu yi nga xamante ni jot nañ ko fee wax ndax rafetlu euh, nga xamante ni moom la moom la wax tey. man gis yàlla yàlla dogal na man am na yoo xamante ne sax si aw ma sax di ko déglu xam nga lu tax aw ma jot. man damay man directeur société la mhm. di ci sant nag Mbaye Sarr bu Sénécartour ak Pa Abdou ñoo ñu laa xam ne man ci sama carrière ak ci sama société bi dooleel na ma société bi bu dee ba mën a exister tey ñuy wax Touba sécurité et service grâce mbay Sarr bu Sénécartour yàlla na yàlla guddal fanam dafa am yoo xamante ni boo waxee ci xaadim saago woo ko rek amul problème ah am na non man wëy xam nga non dama xam ni man luy luy yàq ci luy juge fii war a yàqu ci caaro yi du man xaadim maa koy cautionné pour loolu jëm kanam ndax maay magu xale yi boo jiitee lépp day day tegu sa ginnaaw mais l'essentiel que rek nañ xam ni dëgg ga ma doon wax ak la ma doon bëgg a bëgg nit ñi dégg seen teg seen bët gis nañ ko. mais le fait mhm. soxna si man nag kenn ñemewu ma ba di ma ba di ma ba di waaw non franchement parler kenn ñemewu ma ba di ma offensé wala fii ci caaro yi li ko dale but ba but amul kenn ku mën a wax ci xaadim lu dul xaadim xanaa boo koy wax leen naqari deret ak gaaw a cooki loolu moom moom loolu nga ko mën a waxal. mais Xaadim Njaay moom xol bu rafet la yor day dimbale ay nit day jàppale ay nit tey sama rakk yëpp fexe naa tey ku ci nekk tey ba nga ñeme dugg ci géewu làmb loolu sama sama sama sama ku ci ku nga ci gërëmul nag waroo ma cee xalab. kon kàddu nga xam ne wax na xëy na waxi boppam la wax man yooyu déglu ma ko sax nit ñee ma ko wax nit ñi barki Sëñ Tuubaa nit ñi nag ñoo ma ñoo ma koy wax ndax man am na wax yoo xamante ni aw ma jotu di ko déglu ndax gis nga fi mu ne nii moo pareeg yéen nii damay liggéey xam nga. balaa ma fay ñëw presque mën naa ni ay 3 heures du matin ay 2 heures du matin su ma xëyee damay dóori waat waar am na boo yu bëri sax dañuy am combat du ma leen mën a assister ndax liggéey bi ma yor ndax mënoo signé ay ay nit ay contrat te ñi ma signé contrat yëpp kenn nekkul ci nguur ñi ñëpp ay comme genre mbay saar Sénégal tuur rek lañ mais li ma bëgg rek mooy ñi nga xamante ñoo yor ndono bi muy lutteur en activité lu ñoom rek ñooy lutteur en activité ba tax ci dool nag ñu tudde seen bopp ay VIP te bu doon teg ñoom la rek làmb du dox. ndax waaw bu doon teg ñoom la rek làmb du dox. Ama Baldé guy gi VIP la Siteu VIP la xam nga ñooñu dama leen a naw ci seen i ci seen i ci seen i ci seen i ci seen i responsabilité yi ñuy jël ci seen i rek xool Siteu boo duggee jàmm gën tey ni muy taxawee ay rakam dañu waxante dëgg soxna si dañu waxante dëgg Siteu li muy liggéey man bu ko neexoon jënd ay immeuble dem luye ji mais billahi wallahi tallahi di nuyu Ibra sama xarit ak Abdou Seck sama booy yoo nga xam ne dañ ma bëgg am fuñ ma teg ñooñu moom duñ jël kàddu gu ñaaw di ko teg ci man mais damay wax rek Siteu il faut que ñu bëri di moom mooy royukaay kuy rek royal ci Siteu non dama xam ni li muy def man mi defuma ko di jël ay xalem di ut ay jakarta ay liggéey nga ànd ak nit ba yaayam ba papa kooku génn àdduna mu dese yaayam mu am lu mébatoon yéen ñaar te yaayam yóbbu ko mu génn àdduna nga tabaxal ko loolu kooku moo jara àndal waaye doo ànd ak ñoo xamante ni soo leen waxee dëgg ñu génne offensé la yooyu c'est di c'est di détail mhm. seen bopp seen rek lañ fi nekkal ah seeni i poste rek lañ fi nekkal koro ah bi ñu def ay sàkku la ñu yóbbu doy luwuñ sax ci wax nga indi waaw loolu xam nga man awma ci lu mu wóor xam nga loolu dégg naa ko rek comme ni nga ko dégg non première audience bi moom du wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla bu ñu waxante dëgg rek tey dëgg rek yàlla tax président moo jël micro bi bi mu waxee ba war a terminé ne ku ci nekk maa leen waroon a jox reer yéen ñëpp te guddi na ku ci nekk toogal fi nga nekk sa teraanga dina la fekk foofu mhm. wax dëgg yàlla mais yëkkatuwul bologalement comme nañ ñu ko defaloon ca jamono Ablaye Wade tegal ñu xaalis bi paquet bi nii nga xam ne kuy wax doo xam sax la ngay wax cinquante millions yi ngay gis ak vingt cinq millions yi da ngay gis ku wax bay tufli ratatatatatatat mais li mu méttee yooyu xam nga mais Macky Sall yooyu yëpp dafa ko wax yàlla ba am na mbër muñ ci dóoroon sax mbër mu ci dóor moom mu xam ci biir pale bi ci jamono waaw ba ñu séddalee xaalis bi gis nga lii. maanaam audience bi ngeen ah, mm. mais bii moom coow am fu ñëpp génn ci teeg bakkan am organisation. wax dëgg yàlla non déet bu ñu teg seen loxo. nañ ko nañ oo VIP yi ña VIP tuddee seen bopp VIP xam nga te ay mango baxal laa leen tuddee duñ VIP de ndax nga ànd ak gis nga soxna si gis nga soxna si nga ànd ak say nawle li nga ànd say nawle nga war leen bii am na lu ci yàlla wax te dem na ba làmb ji sax safatul kenn léegi nit ñaa ngi saaga ndey nañ xool bu baax ñuy saaga comme li comme li sama sama booy na booy wax rek booy bi dëkk euh, pikin mhm. euh, Onde le Fou gis nga barki Sëñ Tuubaa Mbàkke su ma yoroon kër gu rafet ñu abal ma ko ne ma ndax mbër nga bëgg mu wéttali dama laa ab xaj laa bëgg mu wéttali ma ah billaahi tëdd ak mbër tëdd ak xaj sax moo ma ko gënal wala tëdd ak fokosière hmm? ndax bëggante wuñu xam nga lépp lu nekk ci kaw dafa war a wàcc ci suuf man lépp lu may xeex sama rakk ya tax gis nga fii day inondé man ba bañ ma xamee ba léegi ba ma nekkee caaro yi ba léegi waa caaro yi gépp mën nañ ma seede amul benn lekk bu ma sa lekk bàyyi sama yenn xarit mais ñii fi nekk ci kaw nii lii ñuy def nii baaxul jekkul rafetul ñun ñëpp président mooy tey ñaanu bu fi Sonko toogoon ku mu woo da ngay wuy dañ waxante dëgg rek bu fi Sonko toogoon tey ji ku ku mais soo waxee sax benn wax sax ñu am fu lay farale te dëgg rek ngay wax muy Sonko ndax hmm? ak ña koy defendre ñi koy défendre yëpp amuñu carte électeur ñuy wax loolu yëpp ñoom ñi ñu VIP la nañ génne seeni i carte électeur amuñu carte électeur binduwuñ mo ay licence de lañ licence moom boo ma laaj seen licence renouvelé ko man la renouvelé lañ ko hmm. barki yàlla nañ génne seen nañ ko génne xam nga gis nga réew mi nag lii mooy yàq réew mi kum neex am nga droit yow tey jii am nga droit far fu la neex soxna si nañu waxante dégg man su ma neexee ma jël ay bracelet Sonko teg ko ne laa faral kan moo ma ci kan mais démocratie lañ ne su ma neexee ne Macky Sall laa ja laay faral mais dama xam ni réew mi yëpp muy Sonko muy Macky Sall ñoom ñaar moomu ñu réew mi li ma leen di ñaan rek lépp lu ci waay def rek boo génnee àdduna dinañ la ko laajaat dama bëgg rek ñun ñëpp ñu ànd ak suñu teeyu bakkan élection bu jotee ñu dem voté ji ki nga xamante ni ku xamante ni moo fer toog yàlla fal ko ku yàlla war a fal def na ko bu yàgg bu yàlla ne Macky la Macky la bu yàlla ne Sonko la Sonko la bu yàlla ne Barthélemy Barthélemy la bu yàlla ne euh, ki nga xamante ni sax mooy mooy Khalifa Sall moom la xam nga bu yàlla ne Boubacar Camara ancien directeur de douane sama xarit sama soppe bu yàlla ne moom la moom la bu yàlla ne Bougane moom Bougane la kon lu fi jar xëccoo wala ak wax ju ñaxu wax ju ñaaw dëkkul fu mu jëm fu mu jógale ci saano li ma bëgg nga leeral ko rek mooy dañu wax que ni euh, maanaam bi ngeen amee audience euh, njiitu réew mi daf leen wax que ni euh, maanaam am na lu mu teg ci seen loxo mais ginnaaw li mu teg seen loxo dale ni maanaam villa yi duñ leen ko jox tànk defoo leen déclaration wax ni moom ngeen àndal ci troisième candidature ndax loolu da koy ah, wax dëgg yàlla dégg naa de xam nga nit tamit looy wax mhm. da ngay borom kàddu mhm. da nga seet sa digganteeg yàlla ndax dew dégg naa ñu ne loolu lañ leen wax ni balaa ñu leen a balaa ngeen a joxe dara dégg naa ko ci benn bëri mu wax loolu mais loolu man wóoruma mais su fekkee loolu am na moom fañ leen doon xaare perte nañ ko ndax wax dëgg yàlla ndax ñoom bu fekkoon ni dañ fal rek mu ngi ci ñoom wala population la ñuy woote ku ci nekk fa nga nekk lu tax woote woo fa meer ñu ne mbër mi moo nekk maire bi boo fa wootee maire ñaari carte doo ko am bul defee ni ñi lay topp ci làmb foo leen jëme ñu jëme fa déedéet làmb nga seq ñoom jeunesse bi man dama rangé wu ci ginnaaw jeunesse bi population bi laa rangé wu ndax tey jii fu ma jaar tey xoola mbër rek ngay mbër rek moo mën a am loolu mbër rek moo mën a jubi entraînement léegi romb ab supporter mu lamb poosam génn 10 000 na ko demal jënd dibi jour bi amu ko